incha allah ayca ma nuyu la Fatima. ziar naa la Salma. nuyu la nuyu mbokku téléspectateurs yi safoo leeru jamono. Mm-hmm. ayca donc si kanam tuuti dinañ dikk ci actualité people yi mais en attendant ñu faram-fàccee li nga xamante ni moo di actualité bi ak euh, soppul la Papa Awa surtout Awa donc euh, Aliou Sow mu mel ne war nga waxtaanee ay ponk yu am solo bu ci njëkk di manifestation au Sénégal encore euh, des forces de l'ordre et après Macron. Euh, donc euh, bind nga daal nga xamante ni moo may. li ma bind baaxul ma xool. baaxul damay lu ne. dana ci jàppale ko non non non non non non non euh, bon comme actualité la aussi élection France yi <laughs> mm-hmm. donc j'avais envie d'en d'en parler ah Macron moom am majorité ba gën a tuuti sous la cinquième république mm-hmm. donc depuis donc 1958 donc Macron tey président musul am élection. euh, gagner gagner ba pare am une toute petite minorité comme ça donc les conséquences par rapport ak euh, la politique donc mm-hmm. française euh, donc euh, euh, ci ci ci ñeent juróomi at yi nga xam ne moom mooy moom mooy la Macron war a gouverner mm-hmm. et puis j'avais oublié aussi de de parler de Youssou Ndour à moins que celle qui s'occupe de de de de People en mm-hmm. parle parce que j'avais envie de parler aussi de l'éco économique mais ñu commencé ci manifestation au Sénégal encore des forts des forces et après encore des morts. des morts et après. waaw. manifestation bi eh, am na ay nit ñu dee. Euh, euh, au au au Sénégal euh, te te te te te te te y' a un an à peine un an c' au mois de mars mars avril mai on est au mois de juin y' a à peu près quinze mois quatorze personnes deewoon nañu ci réew mi maanaam fukki nit ak ñeent deewoon nañu ci ay manifestations yoo xam ne dafa amoon donc par rapport ak convocation bi nga xam ne moom la ñu defaloon Ousmane Sonko. manifestation amaat na aussi. manifestation évidemment dañ ko interdire euh, l'opposition donc a bravé cette manifestation et puis finalement ils se sont retrouvés euh, avec euh, euh, trois ou quatre morts yi nga xam ne moom la ñuy wax entre Dakar euh, et donc la Casamance donc surtout côté côté Bignona voilà et donc ça ça, ça fait effectivement je me dis je, je je ne suis pas content je ne suis pas content de ça parce que lii yëpp man pour man mën nañ ko dans ce pays parce que parce que tout simplement dafa am ñoo xam ne nee nañu je vous le dis souvent c'est un millier de personnes dans ce pays homme politique la ñu homme d'affaires la ñu influenceur la ñu nee nañu euh, eh ben euh, euh, il faut absolument dëkk bi doxee ñoom ni ñu ko bëggee alors que finalement ce sont les Sénégalais qui décident en dernier ressort te Sénégalais moment bi ñuy décider moment yi nga moo am ay justement donc présidentielles élections législatives élections locales moom boobu le peuple bi di décider pourtant dafa am ñoo xam ne nee nañu forcément tant que il faut faire constitution bi nee na leen jox na leen autorisation pour ñu euh, comment dire pour ñu euh, euh, pour ñu manifester nee na nañu dañuy manifester donc par force il se trouve que aussi man ci sama xalaat ci sama gis manifestation c'est constitution bi nee na kenn amul droit tere manifestation mais constitution bi c'est une constitution qui doit être intelligente ou en tout cas interprétée de manière intelligente on ne peut pas dire am naa droit manifestation rek euh, euh, je dois faire parce que finalement bu fekkee dañuy manifester l'année c'est 365 jours ou ou 366 jours euh, bu dee année bissextile la maintenant est-ce que dañu war a toog di manifester pendant 366 jours wala si c'est chaque semaine 52 semaines parce que 52 semaines moo am ci bi bu fekkee ne loolu la ça voudrait dire que eh ben dina am ñeneen beneen fànn boo xam ne dina ko entraver dans la marche du pays donc moi je que ni effectivement manifestation kenn waru ko tere ci réew mi mais euh, manifestation aussi ñiy manifester dañu war a manifester avec intelligence pas faire du forcing pour que économie réew mi tasaaroo euh, euh, euh, ñu bari liggéey ñu la semaine dernière vendredi ñii dañu teel a def seen i ëmb jaaykat yi boo demee ci rond point liberté ñëpp ñu ngi dajale seen ëmb yi parce que ñi ngi bay ñu këf ko boutique yi tëj nañu yenn société financières yi yi nga xam ne wala yenn magasin yi nga xam ne ñoom ñoo def affaire wu ay transfert d'argent yëpp dañu tëj kenn mënul yëngatu parce que ñi ngi xalaat ni dañ leen di dañ leen di dañ leen di dañ leen di agressé wala dañ leen di ñëw nangu yi nga xam ne moom moo nekk ci seen biir parce que booy xool euh, l'autre jour j'étais euh, du côté de rond-point Liberté 6 li ma fa gis daf ma daf ma daf daf ma naqari mm-hmm. daf ma naqari parce que euh, station ah, station Total bi fa nekk mm-hmm. dama gis ñu koy ñu koy sànni ay xeer nga mm-hmm. demaat gestu ñu xool ci sa ci sa téléphone ñu ne la dégg nga maam Euh, bu euh, total bi nekk bi nekk Colobane daaneel nañ ko ma gis fa mu metti ma torop mu wóor ma ni ay doomu Sénégal non seulement ñoom moom total mais ñoom ñoo fay liggéeyee parce que tout simplement euh, on a interdit de manifester des fois dans la vie da bëgg a def dara ñu tere la ko nga muñ indi yeneen stratégie def ay recours jaarale mbir mi ci yoon def ay mais Aliou Sow est-ce que tey nag les responsabilités ne sont pas partagées comme du côté du pouvoir est xamante moo di manifestation bu gënul woon yomb li xew ba trois morts am ci ak plus d'une dizaine de blessés. c'est peut-être vrai mais dans ce cas-là aussi nañu pousse réflexion bi jusqu'au bout ñu ne léegi kon est que on a la droit pendant cinquante deux semaines ci at bi chaque chaque semaine ñu def manifestation bu ñuy xalaat rek nañu xalaat bu mu mët sëkk. Mhm. ok d'accord dañu war a nee naa leen dañu war a am ku nekk am nga droit manifester demande de manifestation te kenn amul droit tere la ko. Mhm. waaye d'accord naa ci benn côté mais ci benn côté bi. est-ce que am nañu droit di manifester pendant cinquante deux semaines si on en a envie même bu fekkee ni dañu war a perturber le système perturber justement euh, l'économie du pays perturber nit ñi ak Sénégal ni ñu mel gars yi ni ñu agressif des fois par rapport ak euh, comportement yi nga xam ne mën nañu ko wala euh, débordement yi nga xam ne mën na am mu wóor na lii na ko contrôler tout le temps est-ce que bu boobaa ñu ne bàyyi nañ bàyyi nit ñi ñuy manifester cinquante deux semaines mm. wala trois cent soixante cinq chaque jour une semaine avant euh, demandé woon nañu autoriser leen. enchaînement yooyu nag man moom laa mënul comprendre je crois que y a de la provocation dedans je ne suis pas d'accord avec ça. Mm-hmm. si j'ai envie de prendre le pouvoir je fais autrement. Mm-hmm. nee laa def man am naa sama xel am naa sama xam-xam am naa sama xalaat nguur gi xam naa li ñuy def ni baaxul mais li may def mooy wax ak sénégalais. Mm-hmm. mais pourquoi perturber le système pourquoi di daaneel di di di di di di di toj ay ay ay ay ay yoo xam ne soi-disant euh, et puis pourtant ay sénégalais ay Sénégalais ñoo fay liggéeyee et ça ça m'horrifie moi et je ne suis pas d'accord avec ce principe là moi je suis d'accord évidemment euh, marche kenn waru ko kenn waru ko tere mais bu ñuy wax marche kenn waru ko tere xel ñu borom xel ñoo tax ñu naan marche kenn mënu ko tere si c'est pour enchaîner à chaque fois et puis ma si gën a metti mm-hmm. mais tout chaque fois c'est les c'est seen ma ne la seen jànq yi sax lu ñu dee ku leen jege sax wala ku ñu xam sax lu ñu dee toujours ñoo xam ne xamuñu leen ñoom ñooy dee am ay problème ci marché yooyu homme politique doo leen mës a ci marché yi ñoom ñëpp nag même ci nguuru Macky Sall euh, Abdoulaye Wade bi ñoom ñi nekk ci nguur gi ni tey yi nii nekkoon ci opposition bi c'était exactement la même chose jamais ñoom ñu jiitu wala ils faut semblant de jiitu pendant ce temps yàlla y a à côté prêt tu embarqué leen dugal leen ci biir pourquoi pourquoi ma ne euh, toujours doomu jàmbur yi rek ñooy ñooy dee est-ce que pour récupérer nguur xel gëlul que manifestation rapport de force mooy lan mais nguur gi nañu de force parce que ñoom ñoo am waaye peuple bi il a le dernier mot na man naa dem wax ak peuple bi wax ak ñoom li nga xam ne moo fi xew ñu si teg seen bët bu boobaa bés bi bi jotee bés bu mag bi bu jotee bu boobaa ngeen wax ak peuple bi peuple bi dinañ xam lan la ñu war a def. Mm-hmm. mais pourquoi diggante bi ay nit di ci dee ay oto mais am na nit koo xam ne ñetti otoom la ñu toj. Mm-hmm. mais vous pensez que c'est normal man rond Liberté sama oto dañ sànni xeer toj mais jéem a moytu jaxase baa de kees bi yëpp <laughs> fii nii à 15 heures 16 man li ma si loolu c'est normal ce jeune sénégalais bi ah. xam ne génn woon sax pour manifester place am lañ ko fekk mu doon jaay ay matelas. mais dégg nga lu ma wax dañ ko taal. ñu taal ko ba mu ba jeex mais mais yooyu yëpp xam nga yooyu yooyu kan ko mën a contrôler. Hmm. kan moo mën a contrôler moo tax ma ne manifestation bu ñu koy wax képp am na droit manifester ñëpp am nañ droit manifester man xel moo tax ñuy wax. c' est pas pour qu'il le fasse pendant trois cent soixante cinq jours. Mm-hmm. ce n' est pas possible loolu ñëpp xam nañ loolu mënul nekk théoriquement. ce n' est pas possible. c' est moment aussi de faire un appel à la jeunesse pour ñu conscientiser leen ne leen carrément bu ñuy lu lépp lu ñuy def kenn terew leen nakar kenn terew leen wane seen nakar kenn terew leen fippu waaye lépp lu ñuy def nañ ciy boole nañ ci boole xel parce que ce sont eux les sacrifiés je peux le dire comme ça parce que dafa daan am euh, da daan gis parfois ñuy dawal euh, yenn kii ci réseaux sociaux yi ñii naan waaw da ngay on on lutte pas pour les politiciens mais on lutte pour notre constitution mhm. mais c'est pas une façon de lutter mhm. de lutter pour une constitution joxe sa bakkan ci loo xamante ne après suba ñooñu noonu ngay xeexal suba ñoom ñooy toog fii def fi loo xamante ne du ñu respecté seen seen seen promesse te subaa ñu mel ne du ñoom ñoo toogoon ana Ndiaga Diouf ana Ndiaga Diouf est-ce que gis nga doomu Moustapha Niass na ko mais Baye Diaga Diouf ak Ndeye Diaga Diouf ana ñu. ana ñoom Balla Gaye ca temps wu Ablaye Wade et puis manifestation bu ko euh, Aliou Sow doomu Ousmane ko ci kaat kaatam la dugg. mais xam nga jabaram yóbbu ko mu jàngi. mu jàngi sa doom ak mu na ñoo xam ne jàngu na ñoo xam ne seen doom jàngu. il faut le dire moi je pense que ni xam nga il faut dire la vérité. Mm. fii ñun ya fii yàlla rek fi nekk. Mm-hmm. ma yàlla laa gëm. Mm-hmm. gisuma leneen nag. te lépp lu ma xam ne xalaat naa ko ni dëgg la dañ koy wax fii ma toog nii wax tant que may nga wax. Mm-hmm. dama ne. li ñuy def du dëgg du yoon dëgg bi dañ ko war a jaarale yoon quand on veut récupérer le pouvoir yaay a une manière beaucoup plus démocratique Vraiment. de récupérer le pouvoir mm-hmm. pas ci coow nii c'est toujours la même chose ñoom Macky Sall ñii lañ jëlee nguur gi mm-hmm. qu'est-ce changé entre temps la moo fi changé ci wàllu avancement démocratique mm-hmm. c'est toujours la haine da ngay gis entre ñoom haine la ñu am entre ñoom ci seen i biir te ñoom seen i doom yi wax naa la ko léegi ana doomu Moussa Dias doomu Moussa dara jot na ko Mm. Oh, à la sax après dañ ko jox marché. Mm-hmm. mooy marché euh, yooyu ngeen doon de xaw ma tàngis la xaw ma lan. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est vrai. six la def ñu jox leen presque presque des milliards. Mm. moo tax it këpp na. këpp na. <laughs> këpp na ana mu ana ñoom wax ñi nga xam ne seen bo seen tànk damm na ci am na ci ay problème est-ce gis nañ ci seen bopp. Mm. depuis pourtant ñenn la doon jàpp léegi dañoo xeex Ablaye Wade. il faut réfléchir dañu ànd ak suñuy xel quand on veut battre quelqu'un quand on veut faire tomber la voie de la démocratie xel di wax ak réew mi metti na nag mhm. c'est difficile parce que il faut nga ngay wax doon nelaw machin et cetera mais bu la ko jaralee sacrifice boobu la gars yi di bañ di def ils préfèrent créer benn tollé pour récupérer nguur gi comme les autres ils l'ont fait et après ça va continuer la même parce que après ñeneen ñi aussi ils vont avoir la haine nekk ci opposition bi ñu continuer am ñu ay nit yu bees yu nekk ci nguur gi ñuy continuer et puis c'est Sénégal qui continue comme ça sa bopp dëkk bi avancé wul lépp a mais est-ce que gis nga leen ñu mais finalement lan mooy problème mais Aliou Sow di dem juma tamit takk sa micro sa suuf yére tamit. mais ba ba c'était prémédité xam nga xam nga aussi man j'ai compris j'ai tout compris. film rek la joué film. dama ne yii gars yi c'est un jeu qu'ils sont en train de faire peut-être ce jour-là Ousmane Sonko ne devait pas aller à la bosquée. Hmm. est-ce qu'il y va tous les tous les ah, tous les vendredis. j'ai pas compris le projet en fait. non mais yooyu yëpp ay non loolu xam nga man man xam nga man gis nga fii lañu commencé jox dañu compte. Hmm. gis nga fii. dëgg rek la ñuy wax yooyu ñuy def noonu ce sont des jeux ay stratégie politique la yu gars yi di teg c'est pas bon ça allez parler aux populations dem leen def ay doxantu mosu leen fi def ay manifestation ay taalibe daf leen def ay manifestation ta taalibe yu sonn wala lutte contre le cancer pour mu am jalis mos nga fi def njëkk yow suba teel nañu manifester manifester pour euh, lutte cancer bi xale jigéen ñi ngi bëgg a dee cancer de l'utérus mi ngi rey doomu Sénégal jigéen ñi cancer du sein mi leen di mooy sama exemple parce que dama fay romb damay gis lu may metti mhm. dans l'hôpital Dantec ngeen xool boo leen demee di ngeen gis li fa xew yéen pourtant doo leen manifester au moins sax benn benn yoon par weer ngeen manifester pour pour pour pour pauvre contre la pauvreté ngeen manifester contre le état bi avantage état bi am le train de vie de pour loolu est-ce que da ngeen di manifester pour wàññi pour wàññi les prérogatives du pays président dafa am doole ci réew mi est-ce que wax loolu yéen ngi Sénégal benn yoon waaye ay affaire liste mais bu kii nekkul député keneen nekk député il est où le problème est-ce xam ne ñoom seen nekk député mm. moi quand je vois parce que waratuñ nekk député mm. parce que dafa doy Fatima Kide xam ne dootu leen nekk député moo tax ngeen di poser un problème def ko xeexu Sénégal mm-hmm. mais ce n'est pas vrai xeexu Sénégal mooy jalis xeexu Sénégal mooy nga bëgg a faju feebar faju par force. waaw loolu par force d'accord naa parce que xam lu tax parce que nit dafa war a am sa dignité nit daf bu juddoo dafa war a lekk ba suur naan ba màndi bu bëggee fee faju mu faju bu ay doom war a jàng ñu jàngi loolu d'accord naa ci mm-hmm. waaye doo def ay manifestation pour loolu pour lan pour ay liste mais on en a rien à faire de vos listes yéen ak nguur gi laa wax man faalewu ma leen en tout cas c'est aberrant mais ñu wax ci ce qui se passe en France actuellement euh, pour quelques minutes rek ñu wax ci rapidement donc mu mel ni yaa ngi wax ci Emmanuel Macron ci majorité bu tuuti bi nga xamante ne am na ko si cinquième république bi waaw loolu mooy démocratie man yooyu laa bëgg mhm. yooyu xel na de pratiquement amul campagne électorale parce que gars xam nañ li ñu war a def mhm. wax nañ ci def nañ quelques tours dellusi nañu dóor nañ mu doon nañu mu daanu mais nee nañu yow yow euh, euh, euh, Emmanuel Macron eh ben jox nañ la pour nga nekk président de la république. Mm. waaye dañuy équilibrer mbir mi yow. comme ça nga xam sa bopp yow. comme ça di nga am ñoo xam ne di nga dem wax ak ñoom. Mm-hmm. waaw parce que Jean-Luc Mélenchon mii di nga wax ak moom parce que Emmanuel Macron va se retrouver deux entre deux cent dix ak peut deux cent quarante députés. Mm. Mm. ci députés en France. Euh, euh, waa waa kër euh, Jean Marine Le Pen vont se retrouver avec 90 députés un peu moins de 100 députés. ñeneen ñi ñu waa waa ki kii comment dire NUPS ak Jean-Luc Mélenchon ñoom ils vont se retrouver avec à peu près 200 députés. léegi loolu mooy équilibre ci réew mais loolu loolu mënul am Sénégal boo gisee ma jox exemple bi. loolu mënul am Sénégal fii kuy gagné da ngay gagné ba ba ba ba ba yegg teer ba kontaan ba ba tàllee mhm. <laughs> parce que xam lu tax parce que ni ñuy ni ñuy defee ni ñuy defee ni de scrutin bi moo baaxul. Mhm. parce que équilibré wul booy gagné rek par exemple par exemple ni bu amee majorité rek liste liste pratiquement majoritaire bi 53 la pratiquement 40 yëpp yaa koy jël. 40 mhm. yi da nga koy jël ba ba pare nag doo ko wax waxu département yi département yi foo dóor mu daanu foo gagné rek boo nekkee pay rek jël jël nga nombre de députés yi bu dee sept députés la mooy rafle ci sept députés yëpp bu fekkee ni trente voix trente pour cent la am est-ce que vous trouvez que c'est normal donc yooyu faisant ça fait que effectivement lii nii Emmanuel Macron politique bi mu bëggoon teg yëpp mm-hmm. da koy xoolaat parce que il sera obligé mu sóoraale euh, opposition bi mm-hmm. parce que bés bu naree dem ba teg programme am mm-hmm. pour demander au gouvernement pour gouvernement bi dem taxaw assemblée nationale. pour mhm. demander pour ñu pour ñu pour pour pour ñu euh, déclaration de politique générale pour gars yi accepter ko ko. Mhm. il faut mu négocier lu bari. il faut mu xoolaat ñan la war a nommer. des mhm. fois sax capable na dem jël ay yenn poste ministériels yi. jox ko yenn jox ko yenn nit ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk dans l' opposition. et c' ça qui est qui est extraordinaire. dans une véritable démocratie waaye démocratie euh, que ay c'était un peu trop court mais a baax na euh, les jours vont se suivre et euh, mm. certainement vont se ressembler ci kàttanu yàlla sax inchallah nga naanaali sa café inchallah di jaajëfal la moom moo Orien l'assistante ni moom moo Khady ak Khady Ba aussi à Diamniadio bëgg naa ko a tout le monde toute la famille puis mes enfants Hélène qui est en